lépp loo xam ne ajana ci kër sëñ Maajun daal ah, na nga xam ne am na wet gu sëñ Maajun féete woon sëriñ bi eh, mu di ko liggéeyloo liggéey boobu nag la sëñ bi yeesal ah, moo moo tax sa borom yabal ko fi mu ñëw fi jëmmi sëñ Tuubaa ah, di wax ak nun eh, eh, tolloog nun ci ëppoon nañu sax waaye nag wàcc na ba tolloog nun ngir bëgg na jariñ ci mënut a dem ci antu antu antu nun kon noo ngi sant bu baax ci loolu ni nga xam ne noo aj ci kër gi nag dib taalibe di doom di sët di sitaat ak foo mën a bokk ci bokk ci Gaston Mbengue ah, foo toll fa nga nekk sa sa sa say wax ak sa say jëf lépp nekk ci ak defar ah defar gi nag mooy nu sax ci ndigal suñ tubaay yi doole cee góorgóorlu suñ kam lay kattan def ko na ci lii juróom ah, ci lu ci weesu mel ni defagun dara ah bu nga ko defee rek dana daw Euh, li nga xam ne mooy bunt bi ñu feeñ fii nag euh, mooy bunt bi war a doxal euh, muy Tuubaa kenn waruñu caa jiitu ndax bi sëñ bi wër dëkk bi su maam ja moo moom lantaloon ñu ànd di dox mu di ko jox ndigal mu di ko jëfee ba di si tey kon nag ci kenn jiituwu ko ci woon te Mbàkke Kajoor ba léegi kon nag war na xam lu baax jàpp ko te nekk ay taali bi ñu xam ne faa war ay bi lañu doon te sama sëriñ bu baax ba daana wax ni ab taalibe bi bu amee ndigal mi ngi dox boo mu ndigal dafa taxaw mu Cheikh Moustapha Bassirou eh, waxtu mu san jox ndigal loolu yor ñu ne taalibe bu amee ndigal yaa ngi dox boo mu ndigal yaa ngi yaa ngi taxaw eh, nu bàyyi xel loolu ci doole góorgóorlu bu baax eh, ndax li aw sasu rëy rëy la ñoo sant yàlla bu baax itam di sant ci suñu kilifa gi fi nekk muy Cheikh Mountakha ci doxinam mi ndax ni ñu ko ubbee lu am solo ni mag ñi doon doxee donc la la ko la ko ubbee kon nag nañ doole góorgóorlu bu baax ci topp ko topp ndigal sunu sëriñ sunu bunt sëriñ tubaa muy sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toog jotaay yëpp seex maay sunu mi tey jii di leen xamal ni sëriñ Muntaxa nee na yéen ñi daje fii ak ñi fi nekkul te nekk ci yeneen barab fu maa doon ci réew mi ak bitim réew seen ndigal mooy ndigal lii nga xam ni seex Muhammadul Habib moom seex Muhammadul Faadal moom sëriñ tubaa ñëw na fii ci kër sëñ maay sunu mi woonu ci won nu ko xamal nu ko sëriñ Muntaxa mi ngi leen di xamal ni koo xam ni sëriñ Mahi mooy sa bunt sëriñ Touba foo mën a nekk ci bitim réew ak réew mi na nga wéy ci jëfe ndigal lii te bu ci dellu gannaaw mukk waxtu wu ne na nga ci sax kenn ku ne ci yéen na fexe ba am carte membre bu ko wane ni moo bokk da cee bokk ci mbir mi nekku ku ciy barkeelu te kenn ku ne boo amee carte ba noppi nay jënd waxtu wu ne li nga xam ni mooy ndigal lii te lu mu jamaa teg mu teg ko ca na ngeen xam ne am murit kat bay aw sasam doyut a teg taran waxtu wu ne ab murit su bayee aw sam ba noppi dañ ko war a ñaraas ñaraas woowee nag kenn ku ni ci moo xam nam ko ma mëne muy ku mën a jënd fukki at fukki at ku mën a jënd ñaar fukki at ndax na ngeen xam ne murit bu ne war naa jaayante bàyyi fi junni at bala faatu yoo xam ne koy jënd bàyyi ko seex bàyyi ko ci liggéey bii dénk leen ko mu ni ko fekk fa mu nekk sëriñ Muntaxa nee na sant na leen bu baax gërëm na leen baax ci wuusi gi ngeen wuusi mboole ñi nga xam ne ñi ngi ci biir réew seen loxo ñëw na ñu nekk bitim réew te ñëwuñu seen loxo ñëw sëriñ bi nee na seen mooy waxtu wu nekk saa su nekk ni ngeen sax ci jënd carte yi nga xam ne moom leen liñ jaay par weer wu nekk muy ñaari téeméer dërëm na xam ne ab murit kat wala na ko sos lu ëpp loolu waaye la Cheikh Mamadou Mountakha waxaan rek la dooleen rek la lu ñu doole rek lu ñu doole rek la ci jëf ju baax kon nag bu ñu la doolee ci jëf baax da ngay fexee doole sa bopp mooy jëf ndigal li sëriñ Mountakha nee na loolu rek leen di jot li di sant sëriñ Modou mi nga xam nii dimbaleeti nanu te yàgg nanu dimbale <coughs> teg nanu ci yoon wun mën a liggéey sëriñ Tuubaa wu leer nañ te jiit nu ca nag sax ca dàkk kon sëriñ Mountakha nee na Cheikh Modou Habib sëñ bi mi ngi lay sant di la ñaanal waan na ko wér ak mucc te sax ci ndigalu sëñ Tuubaa li yóbbaale ci loo bëgg a yóbbaale lépp koo bëgg a yóbbaale nga yóbbaale ci ci baaxu Seex Mamadu Faadal jërë ngeen jëf. biir Touba wala nga nekk bitim réew ak foo mën a nekk ci àdduna bi sëñ bi mi ngi lay jox ndigal loo xam ne danga gën a pëstefuwaat ci Touba ci kanam ndax Touba ci kanam mooy suñu avancement mooy suñu yokkute ndax koo xam ne dafa ñëw kat fas yéene laa jàppale ci loo xam ne mënoo ko woon wala bokk sa kàttan àggu fa woon mu ne nañu boole suñu doole jim laa jàgg jàllale foofu kon du duñ def lu dul rek ñaax taalibe boo xam ne nii yaa ngi aju ci kër Cheikh Mayacine umi nga gën a jàpp ci Touba ci kanam yaa xam foo mën a nekk nag ci àdduna na nga xam ne sëriñ Mountakha Dieng xalifa Serigne Mayacine Oumy jox na la ndigal soo ci nekkee nga gën cee nekk soo ci nekkul it nga dugg ci te xam ne digal na la nga dugg ci ñu fi dajee ci suba ba léegi eh, ñuy xamle ne dajale nañ fi juróom-ñett fukki junni ak juróom-ñaar eh, comme ni ñu taxawalee commission bi mooy xam xamlal nañ leen tur yi nga xam ne ñoo yore blog yi nekk fii ci Touba eh, beneen bi ci des mooy képp koo xam ne aju nga ci kër gi wala nga ñëw ci jataay bi wax nañ danañ fi bàyyi ay blog ci kër gi bu ko defee ñu mën a gën a soobu ci liggéey bi koo xam ne nekku ci woon mu fas ni cee nekk njiitul suñu Muntaxa ak suñu Moustapha bi ak suñu maam Thierno mi nga xam ne moom la àndaloon doon nos liggéey bi di leen sant bu baax a baax ci nosin wi ndax lii day suñu noflaay ndax warteef la woon ci suñu abibu warteef la woon si waa Touba ca kanam gépp képp kuy ab taalibe foo ma di aju ñu dox ba fekk la fa nga nekk na la kaay Touba ca kanam ngi nii nii suñu Muntaxa def nag day yoon woo xam ne ak jàpp ndal la suñu jàpp jàppandal gu am solo ndax xëy bis joxe ndigal mbooleem ñu aji si waa Kër Sëriñ Yaasin ummi ñu daje ñu mën a daje daje jëf ñi munta daje ñu wax ay kàddu yoo xam ne dana leen fekk fa ne ba fa nekk ngir soññ leen loolu sunu noflaale sunu noppal la yàlla leen suñ seen suñ tubaa noppalal seen mbir yëpp bak Seex Xaadim di tey ñaan ci mbooleem koo xam ne seexub sëriñ nga ak foo ma di nekk nga dox si doxin doxin wii xëy bis woo sa njaboot gépp ñu ñëw wuy seendoo si Touba Ca Kanam loolu moom ñu ngi koy sàkku ñëpp di leen sant bu baax di gërëm li des ci kàddu yi mooy kàddu sëriñ bi ñu jox ko ko mu fas yéene ko jàllale. ki jullit yi mbokki taalibe fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abibu moom Cheikh Mamadou Fadil mi toog di jiital ci nuyoo bi. cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér te àggale mboolem ay naalam ak i yéeneem ak i mébétam ci liggéeyal Serigne Touba. dana ànd koog moom bu nuyoo ba bu jàllee muy nuyu kilifa gii toog di sëriñ Mountakha Dieng mi nga xam ne mooy kilifa kër sëriñ ma Yacine Oumy sëriñ bi sëriñ Habibou nee na mi ngi lay nuyu mook njaboot gi mu àndal di waa Touba ca kanam gépp di la siyaare baax di la jox sa wàccuwaay di fab am nuyoom akub siyaaram di la ko teg sa loxo nga jottalil ko ko mbooleem njabootu Cheikh Mayacine ñu gépp góor ak jigéen mag ndaw ak taalibe yi ñaaju ci kër gi ñëpp sëriñ bi nee na seen nuyoo mi ngi noonu nga jottali leen ko gannaaw bu mu la nuyoo siyaara la ba noppi di yëkkati nag ay kàddu yi cant jëmee ko ci sëriñ taxaa ak mboolem njaboot gi ndax sëriñ Muntaxa sëriñ Habibu nee na lii nga def di ab soññee la ci moom di soññee ci waa Touba Kanam ndax liggéey bi wan nga ko ci pëseef wan nga ko ci itte yónnee woon ndaw da ngaa ñëwal sa bopp ba ci moom nga xamal ko ne ko da bëgg ànd ak moom liggéeyal Sëñ Touba ci liggéey bi woote bis bu mag nii yaatale ko nii woo sa njaboot gépp ngi jëmmi Sëñ Touba kon loolu Sëriñ Habibou nee na gis na ko moo waa Touba Ca Kanam gépp waaye nag dañ koy jàppe ab soññi ab soññi lay doon ci ñoom ndax yéen kët su fekkoon wàcc des di wàcc tool bi ñu ne wàcc mën ngeen a wàcc ndax yàlla dogal na seen waju sëñ ma yee seen ummi ku ne xamoon na diggam ak sëriñ bi ku yàgg sëriñ Touba la ni ngeen ko waxee ci Mbàkke Kajoor ba ci Touba bi mu nekkee Touba it bokk na ci ñi doon jëwiñ ci Touba bokkoon na daara joo xam ne moom maam Cerno Birahim ak sëñ Bara Fall Gaye sëñ Masamba Kanni Bousso sëñ mat saxeer mbay Louga ñoom bokkoon nañ benn barab bu nekkoon ci loo xam ne it leer na ma naa ñu ci liggéeyal sëñ Tuubaa képp ci la masa nekk yéen ñi nga xam ne yéenay waa kër mi ci la leen toqi ngeen nekk ci ba toll nii kon su fekkoon wàcc day am kon mën ngeen a wàcc waaye bi ngeen yégee liggéey bi ngeen engagé waat loolu ab soññe la ndax sëñ ma yaasin mi kat ku am tawfeex la ci sëriñ Tuubaa ku ci am xaas la ku ci am ak jagle la ndax ku yàgg ak moom la waaye ku déggoo woon ak moom lool la ku Sëriñ Tuubaa fonkoon lool la kum defoo woon lool la loolu it ay firnde mën na ci am benn bi ci jiitu mooy sëriñ bi yëkkati woon na doomi boppam muy soxna Umi Mbàkke jox ko ko te booba mel na ne ba ko sëriñ bi jox sax dafa wax ne yàlla suñu doom dama yees ummi la wax mel na ne tuddoon nañ ca ñeneen waaye sëriñ bi wax ne yàlla suñu doom ma yees ummi la wax kon kooku yàllaa ko ko tànnal ci sëñ Touba loolu doy na xaas bi ci topp muy sëñ soxna bu sa jeng mi nga xam ne mooy wajju sëriñ Modou bu sa jeng moom it ba mu koy yëkkati moom sëñ ma yaasin ummi di ko jébbal sëñ Touba ay kàddu yu sëriñ Touba waxoon ci sëñ Fallu ma waraloon loola ba sëñ bi waxee kàddu ya ba mu daanoo la sëñ ma yaasin ummi dem jàpp ci loxob soxna bu sa jeng ñëw jébbal ko ko ne ko nii ne kii de soxna su mag sa laa ko tudde sëñ bi fab ko wax ko ci ay wax am lu mu ko ca fàggul pàggutéef boobu nag jafe naa ñëpp gis nañ ko ndax sëñ Modou Bousso Dieng moom ku ne xam na ne doy na pàggutéef kon sëñ ma Yaasin Ummi ko amoon ci sëñ Tuubaa la waaye kon nii nga ko defee sëriñ bi xamee na ci ne am nga yitte am nga pësteef bëgg nga sëñ Tuubaa bëgg nga dëkk bi jëm kanam loolu rek la ci la lañ ciy jànge waaye nag ñu ki soññi koo ndax ku la gis fi nga àgg ci liggéeyal sëñ Tuubaa boo ko déggee mënoon ngaa yëkkati sa sa addiya joxe ca te du tee mu amal mu am njariñ waaye yemoo ci boo ca yemoon képp it mu doy boo ci say ñaan waaye téewul nga jugal sa bopp laxasaayu jiite mbooloo mi fas yéene ànd ak ñoom liggéey sëñ Tuubaa kon nag loolu sëñ Tuubaa bi ñu ko defal képp mu am sa fay yàlla na la fay la kawee sa njort yaa ngi mbooleem njaboot gi nga àndal sëñ bi sant na bu baax ñi mu àndali sant na bisil xasidati kama a وليجر بكل ما طلبت